artiste di yëngal Sénégal ci wàllu bët bët yi moom wax dëgg yàlla euh, sonaloon na ma trop mais maa ngi am yaakaar nag ki faj mi may faj nii fii ci Tunisie Arona Dia nag am naa fu may tàmbalee ci li ma koy sant mais aw ma fu may yem Arona Dia merci yàgg sa njaboot yëpp maa ngi leen di nuyu waa Fuuta yëpp mboolem tukkuleeri Sénégal nuyu naa leen ndax yow di nuyu waa Burkina bi nga bokk maa ngi lay bëggee bu baax ja ndax yow euh, yoroo sa teraanga rek diko duggal ci ay caaxaan li nga am lepp ci aduna def na ay recherche ñu ni ci lu baax rek nga koy def kon yalla na la yalla fay lu baax li ngay def di nuyu cheikhou dia sa frère sa rak bayu ma benn yoon mi ngi may topp guddeeg bëccëg cheikhou dia mom tam aw mo fu may yemale ci santam nang koy bégge bu baax poste biñ ko tek daal mi ngi football normal di nuyu tukulo yi Sénégal yëpp di nuyu wat arona dia suñu mbokk ma ngi mën Baye Fall kontaan na ci yow trop fi nak fagn mi ñu may faj normal amul dara lu wax dëgg yàlla dara manqué am naa juróomi sëfoor am naa lu ëpp juróomi sëfoor sëfoor bu ñëw bu tey bu ëllëgee keneen ñëw ñu ngi may yóbbu ñu ngi may indi docteur itam xaw ñaata docteur la kontaan naa bu baax fi ma daral kilim bi du fay maa ngi dund bu baax ndekki leen añ beeg dara manqué wul jaax wax dëgg yàlla defal nga ma taraanga boo xam ne ne yàlla na la ko yàlla fay di nuyu Iran Ndaw Iran nag duma ko ñaanal dama koy wax ni ko yàlla na ko yàlla may fa mu gudd ak wér-gu-yaram ndax ba yàlla mii wut moom Iran mu am ko yàlla na am yàlla ci li muy te xam naa ne dana ko am ndax lu baax kenn du ko def jëlee lu bon di nuyu waa Sénégal yi di nuyu sox yi mu jàppale yépp yépp di nuyu soxna Aïda nag wax dëgg yàlla bu mu ñëwee Sénégal ak jàmm danaa ko dem seeti ko ndax jigéen ju man góor la jàmbaar la jigéen la waaye jàmbaar la te itam am na lu Serigne Saliou def ci moom ndax du n'importe qui te itam boo ko gisee xam ni ci farataak ful ful rek lay dox danaa ko seeti bu soobee yàlla di ko nuyu di ko bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal Cheikh Mbéthio fu mu tëdd yàlla woyof sowal suuf ci kaw ci barke Maam Cheikh Fall di nuyu ñëpp di nuyu sama sëriñ seen Cheikh Fall Baye Gëm moom sëñ Fall Fall borom ndaam àjjana sama am soxna Fatikan sa maam di nuyu sama mbokk yëpp ñu ngi lay nuyu aarona ji ñu ngi lay sant mbooloo mu bokk ak man rek sant na la gërëm na maa ngi nuyuwaat Seexu bu baax di nuyuwaat ñu ànd ak man ñëpp ñi ma accompagner ñi ma dimbalee ñi ma defal ñëpp nawew ma kenn maa ngi bëggee ñëpp man la Baye Fall fii ci Tunisie di faju faj moo xamante ni fu ma mën a ci àdduna bi mun maa am faj mu gën nii merci beaucoup. merci Harouna Moussa Dia c'est l'unique c'est l'incontournable et l'incontestable merci jaarama Harouna Moussa Dia